fa muy jeexee xale bu patron de presse bi da da ko doon santas ba ko tëddee ne ko ne ko fi mu nekk nii nag li ma la jot a may ci xaalis yëpp ah boo matalul la ma bëgg maanaam ma xam la nga woddoo sa formation bi doo ko yegali te des na ñeenti weer dootuma la jox dërëmu Mali jox na kook joxu ko def na ko kook defu ko ko xale baa ngi.
affaire bi nii la demee man étudiante laa université laa nekk sama première année bi ma fi ñëw dañ ma fi booleloon ak benn patron de presse bu ñëpp xam pour bu ma ñëwee fii Dakar parce que sama mbokk muy sama sama rakku maam muy sëy ak moom rakkam bu góor léegi ñu boole ma ak moom pour bu ma ñëwee Dakar en cas su ma amee problème may dem ci moom ñu bi ma ñëwee Dakar ñu joxoon ma numéro téléphone parce que mettre woon nañ ma en contact ak moom ma waxoon ko maa ngi fi un jour ma woo ko daal ne ko ñëw naa maa ngi Dakar mu ne ma li tax bi nga ñëwee ba tey woowuloo ma waxuloo ma ko parce que yëguma woon ni ñëw nga ma ne ko ñëw naa fi maa ngi nii maa ngi nii sama benn kër tante léegi mu ne ma boo amee jot jaaral naa jaar bureau ma woo ko benn jour ne ko fu mu laaj ko fu mu nekk mu ne ma mi ngi bureau ma ne ko ndax mën naa fa jaar mu ne ma waaw ma daal dem bureau bi ma fa demee ñëw wax secrétaire bi ne ko moom laa bëggoon a gis secrétaire bi dugg daal di ko koy daal ni ko am na ku lay xaar sa benn jarbaat mu ne ko waaw amul problème bàyyi ko mu ñëw. bi ma ñëwee ma daal di dugg ci bureau mu ne mu laaj ma ne man ndax amuloo benn problème université ma ni ko université moom ku ko xam-xam ne vraiment dafa métti actuellement nii may toog sa ni may wax ak yow nii amaguma logement mënuma jàng daal ci condition yooyu léegi mu daal ne ma léegi nan na nan nga lan nga bëgg ma ne ko léegi dama bëggoon ñu utal ma logement université mu ni ma waaw amul problème dinaa la utal logement léegi ne ma demal nga renseigné wu ci logement yi naka lay demee bi may jógee keroog bureau mu yëkkati cinquante mille daal di may jox ne ma am boo demee jëndal ticket ma daal di ñëw ñibbi si université daal di laajte renseignement ñu ni ma il faut nga codifier boo codifier wul doo mën a am li wala nga am hébergement ñu expliqué ñu boole ma ak benn waay boo xamante ni kooku nee nañ daal ay affaire jaay lii daal lay def université ñu boole ma ak kooku ma dem gis ko mu ni ma lii bi cent cinquante mille laa koy jaayee.
maanaam mooy lal yi ñuy jaay université daal.
waaw lal yi ñuy jaay université daal di may wax ne ma cent cinquante mille laa koy jaayee. ma dem gis ko ni ko am na kuñ ma booleel kooku nee na lii bi cent cinquante mille la koy jaayee.
mooy fanweeri junni.
fanweeri junni. ma daal di ko koy wax mu ne ma léegi amul benn problème su ma wàccee dinaa la ko indi bi mu wàccee mu wax ma ne ma maa ngi ci corniche bi kaay ma ñëw mu yëkkati cent cinquante mille daal di may jox ne ma naa dem jënd lii. ma jël cent cinquante mille yi dem jënd lii dem dëkk université ma dëkk quelque temps après mu woowaat ma ne ma installé wu nga ma ne ko waa installé wu naa mu ne ma amuloo benn problème ma ne ko déedéet mu ne ma dama voyagé woon mais ci biir semaine bi dinaa la woo comme ça ñu gisee. ma ne ko amul problème ci biir semaine bi mu woo ma ci weekend bi daal ni ma foo nekk ma ne ko maa ngi université mu ni ma dinaa fa jaar léegi léegi seet si la ma ne ko waa amul problème moom oto bi mu yor moo tax nit ñu bari duñu ko xàmmee parce que vitre teintée la yor bi mu ñëwee ba buntu ba buntu université mu daal di may woo ma daal di génn mu daal ni ma naka seen dëkkuwaay bi laaj ma ndax maa ngi ci jàmm ma ni ko waa naka seen dëkkuwaay bi ma ne ko amul benn problème maa ngi ci jàmm ça va très bien mu daal ni ma kon léegi baax na comme que amuloo problème daal di yëkkati soixante quinze mille joxaat ma ne ma jëndal ticket.
maanaam mooy fukki junne ak juróom.
mu fukki junne ak juróom mu jël soixante quinze mille yi daal di dem jënd ticket woowu ma woowu ma woowu ma bañ toog ba mat ay trois mois mu woo ma daal ni ma foo nekk ma ne ko man de maa ngi nii université mu ni ma. bëgg naa laa jël si ci biir semaine bi comme ça nga xamante ak waa kër ga man ko waaw amul problème man boobu maa ngi jàpp ne waa këram këram laa war a dem vendredi ñu julli susu àjjuma ba pare mu woo ma ne ma ndax yaa ngi université ma ne mu ne ma changé wul maa ngi lay jël si ma changé wu mu ñëw jël si ma bi ma jël see mu ñëw gaare ci benn kër mu gis gardien bi daal di bu kër gi moom mi ngi nekk maison la en construction kër gi pareegut mooy kër gu ñuy tabax daal.
waaw chantier kër goo xamante ne tabax ñu ngi koy tabax te pareegut ma daal di dugg mu ne ma wàccal ma wàcc bi ma wàccee ñu daal di dugg kër gi moom ñu ngi ko meublé lépp lépp impec mais devanture bi kese moo des tabax bi moom pareegut.
kanamu kër gi daal la ñuy defar.
waaw ci biir moom.
ci biir moom lépp def nañ ko ba ñu ngi gas piscine bi. piscine bi ma fay léegi ma daal di dugg bi ma duggee ñu toog ci salle bi après mu daal ne ma man. amul problème loo bëgg université mën naa la ko defal boo bëggee sax mën naa la may billet d'avion mën naa la utal appartement nga nga dëkk fa te bañ a dëkk université loo soxla ci xaalis laaj ma ko.
mais mais boobu yow bi nga demee fekk nga fa waa kër ga.
fekkuma fa kenn. gardien kese la kër gi kese la gardien ba daal moo ma ubbi. ñu daal di dugg après mu daal ne ma loo soxla ci xaalis mën naa la koo jox amul problème mën naa la sax takk jabar.
takk jabar.
waaw daal li may wax noonu ne ma mën naa takk jabar ma ne ko ma ne ko man daal moom mu ne ah ma ne ko su may dugg ci góor su may dugg je préfère ma sëy ak sama morom mais pas ak koo xamante ni moom ma mag. léegi mu daal ne ma ah loolu nga wax man ko waaw mu daal ne ma kon amul benn problème daal ne ma li ma sox li ma soxla lenn kasa laa bëgg ci yow te loolu ba ma ko defalee loo ma laaj ma jox la ko ma ne ah mu ne ma maanaam mooy ma tëddee la. man ko tëddee men mu ne ma waaw ma tëddee la ma daal di koy xool ba ci kanam ne ko koy tëddee man mu ne ah man ko yow. xanaa man du ma sa jeex baat mu ne ma ba ci la même bu fekkente ni sama jeex baat nga li ma bëgg moom laa la wax ma daal ne ko ah kon looloo tax nga indi ma fi mu ne ma waaw doo xale magum jëmm nga xam nga intellectuel nga ku ñëw ba université yaakaar naa ni ma nga ma ne ko man nag mu ne ma ma ne ko loolu nekkul sama bopp te bu fekkente ne looloo tax nga indi ma fi mu ne ma ma ne ko delloo ma mu ne ma ah lan nga wax ma ne ko ah mu daal di génn jéem laa forcé ak yooyu.
force non forcé wu ma nag honnêtement forcé wu ma daal ni ma kon jugal ma daal di jug mu génn taal otom daal di may daal di may indi ba ci tali bi yóbbuwu ma sax ba université wàcce ma ci tali bi mu yëkkati soixante quinze mille ne ma am passe sa taxi.
mu yëkkatiwaat yeneen fukki junne ak juróom yeneen joxaat fukki junne ak juróom ne ma am passe sa taxi ma jël fukki junne ak juróom yi daal di dem Euh, ma dem ma dem après mu dem diggante waatuñ diggante waatuñ ba ci vacances yi mu woo ma. ba ma jël vacance ba ñibbi mu daal di may woo téléphone daal ne ma foo nekk ma ne ko man tëj naa école ñibbi naa mu ne ma léegi amul mu ne ma ah kon yow booy ñibbi sax doo ma wax ni ñibbi si nga parce que maa ngi doon laaj sa année scolaire mbaa jàll nga ma ne ko waaw jàll naa mu ne ma kon amul problème boo ñëwee déwén nga woo ma bi ma ñibbisee ma daal di koy woo euh, ne ko ñibbisi naa maa ngi Dakar mu ne ma depuis kañ nga ñëw ma ne ko ñëw naa depuis semaine passée ma ne ko mais ren sax dama déposé woon pour subven pour euh, sub euh, mairie bi ñu subventionnellement fait euh, école de formation dama ko bëggoon a boole ren ak université bi. mu ne ma amul problème daal ne ma formation bi ñaata la ma ne ko formation bi da ngay inscrire wu cent cinq mille may benn fay benn mois avance mu nekk cent cent cinquante cinq mille mu ne ma amul problème loolu kese la ma ne ko waaw loolu kese la. mu daal di ne ma su ma wàcc dinaa la woo bi mu wàccee mu daal di may woo ñëw yëkkati cent cinquante cinq mille jox ma ne ma demal nga inscrire.
fanweeri junne ak benn.
fanweeri junni ak benn ne ma demal nga inscrire école de formation bi daal ne ma les sax subvention bu mu ngay wax sax bàyyi ko léegi man dinaa la jëlee sa formation bi en charge. amul ma ne ko amul problème mu jël formation ma dem inscrire woo mu jël fa commencé di fay formation bi di ko fay ba période ba période bi formation bi desee quatre mois mu woo ma téléphone. ne ma léegi nag mu ne ah mu ne ma xool nga li ma li ma li ma def ci yow yëpp li ma investi ci yow yëpp ma ne ah mu ne ma dis-toi que ni mënul nul noonu. ma ne ko mënul niil noonu daal.
mënul nul loolu mu ne ma soit li ma la wax nga def ko soit boo ko deful daal ñu yemale ko fi.
maanaam soit daal lenn daal la bëgg. maanaam sëyeeg yow maanaam tëdd la nga baal ma wa ilaa mu arrêté formation.
wala wa ilaa mu arrêté formation bi ne ma carrément wala nga wala soit nga arrêté formation ma ne ko bu dee loolu mu ne ah ma ne ko nga arrêté kon formation bi mais li nga bëgg mu ne ah ma ne ko du ma la ko defal mu ne ma ah loolu ngay wax ma ne ko waaw mu daal di coupé téléphone am man ma yaakaar ne def na loolu sax mais ma yaakaar ni kii daal ñemewul loolu parce que comme que waxoon na njëkkoon njëkkoon na def posé ak posé genre yo kii yooyu ma ma ma ma séddewu ma ma ni xam naa daal kii xalaatul xalaatu lool. bi mois bi desee ay quelques jours ma ma message ko faalewu ma ma woo ko téléphone décroché tu ma ma xam ne kii.
day li dëgg muy wax dëggal na ko. boobu ba léegi nag waxatuma ko ci dara woowatuma ko ci laa ko gëjee wa ci laa gëjee am benn contact ak moom. léegi nag fi mu nekk nii formation boobu ma arrêté quatre mois laa war a fay école de formation bi quatre mois yi fayu ma leen ko moo tax instant bi mënuma examen.
mais yow est-ce que yow sa tante bi la boole woon noonu ak moom noonu ca xew ma. est-ce que woo nga ko ne ko sama nijaaykat lii la ma mujj def.
non non non ñooñu moom expliqué wu ma leen dara du ma leen ci wax dara parce que du ma li tax ma ne la du ma leen ci wax dara moom li mu bëgg du moment où ko am ko rek man damay sant yàlla c'est pas que étudiante laa dama nekk université rek. que dañoo war a officer wala da dañoo war a fonk suñu bopp ndax à chaque fois jigéen bu jógee bu jógee ci yenn région yi ñëw fii Dakar université rek nga dégg ñu naan moo xale université di nii la ñu mel dañuy taxawaal du ñuy lii ak yi du pour man kese mais dama koy wax pour étudiante yëpp étudiante yëpp laay waxal na nañu wax nañu gën a gëm seen bopp xam ne góor lu mu la lu mu la may rek lu mu la may bu la mayee cent francs ñu ngi séntu ci yow ay millions mais mais mais yow boo ko boolewul tamit euh, wala waxoo ko daal ñenn ñi ay kilifa ak yooyu est-ce que loolu tamit du pour encourager pour encore pour encourager kook yooyu daal pour ëllëg.
non non non Ahmed du ma pour pour pour que may dem ci nit ñi di leen ko wax non non loo dem ci kenn di ko wax man daal li ma def def na ma ko xam naa ko bu xam naa consciente naa ci xam naa ne fi mu nekk nii góor ñi mayeekuñ seen alal ci pour pour mayeekuñ seen alal pour mu dul noonu mayeekuñ seen alal. pour mais yow est ce que xalaat nga ni yow sa nijaay jooju nga xam ne patron de presse la bàyyi na la yow xalaat nga loolu.
non dina ah xalaat naa ko xalaat naa ko vraiment xalaat naa ni bàyyi na ma parce que moom moom moom xam naa ni moom xam xam naa xamoon naa ay intention xam na ni carrément fii li ñu fi bëgg mënu koo am je pense que war naa mën a noppalu ci sama xalaat bu gàtt.
yow daal loolu nga xalaat.
waaw ah ci sama xalaat bu gàtt.
mais yow amoo benn daal benn mbokkam boo xam ne yow dégg nga ko ko nga ne ko kii kat lii mës na ko def même bu dee suñ diggante la yem.
non lii maa ngi koy doog a wax te maa ngi koy doog a wax fii.
yow daal da nga ko yow daal maanaam da nga wax lii pour étudiante yi gën a tijji seen waaw bopp yi du pour man du pour man kese sax maa tax may wax du pour man kese mais pour yeneen étudiante ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi université parce que du man kese maa nekk ci condition yi xam naa ne am nañu bari ñoo ñu xamante ne tey ñu ngi ci condition yi te mën naa man man xalaat bi ma am ak expérience bi ma si am samay samay morom yu bari amuñu ko nañu moytu surtout surtout ñuy moytu ñi nga xamante ne dañoo yor xaalis surtout boo nekkee université gisuloo papa gisuloo yaay à chaque fois bëri na ay góor yoo xamante ne dañ leen koy ñëw di leen ko proposé bu leen sedd man loolu laay wax sama sama mbokk étudiant est ce que ñàkk gi du koy waral yenn saa yi ñàkk gi.
non non non ñàkk bu mu la tax a ñàkki Ahmed ñàkk pour la même boo amul moyen le le minimum que tu as rek gëmal gëmal ni gëmal ni vraiment lii même bu dee cent franc laa yor rek sama cent franc bi daf ma lew mais yore ay millions te lew la man je me dis que alal boobu amul njëriñ.
ok d' accord kon merci beaucoup dégg nga.
Merci.
Simer dagg ko dagg ko dagg ko allo.